Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu mbokki RTV Dakar di dellusee ak yéen ci comme niñ ko daan defee yaakaar jaar nañ fi fi kenn duñu fi laaj euh, maanaam tey rek dañoo dikk ak yéen ci lu am solo maanaam comme niñ koy faral di defee rek dañoo bëgg ngeen ñu topp ci côté bi incha allahu rabbi lépp luy njariñ danañ leen ko may incha allah dañ leen di wax ni képp koo nga xamante si maanaam soxla nga bayre muy góor muy jigen da ngay dégg ñu bare ci bayre lañuy jambat bii nak inshallah rabbi kep ko xam def nga ko ragal da nga dem ba ci yag nga tit te bayre bi amul ben galan ko mi ngi mel na rek tey bukki du gewon fi ba ba muy genn dekk bi da ngay deg ñu nan bukki ba bukki ba bukki ba bukki ba mais yag ba ko laal dara bayre bi tamit non lay demee ciow du la manal dara mais macha allah nañ la eh, sopp ci côté yépp koku mom lu wér la bo bi wa sama ay saatu buru ji bam jeex dang koy ubbi so paree nga tëj so soo deru bukki nga koy ëwee kooku boo ko defee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bayre rek da ko am am am ba mujj mujjiti mais du la wàññi dara incha allahu rabbi mbokk yi kon ngeen topp ñu rek ñu leen ko bëgg di jàppoo yéen incha allahu rabbi